Salam alaikum yi Maître du Cheikh Tidiane Cissé le coordinateur officiel de Pastef Kermassar Nord donc la section communale de C'est Massar Nord Qui est en une de se faire. ban activité politique et sociale lañu ñu war a mener ak Kër Massar ñu daal di déggoo nañ fexee def circoncision mais circoncision bi bi ñu ne sociale ñu toogu xalaat ba bis day am borom te sociale bi fan lañ koy defee muy Kër Massar mu am nag koo xamante ne bokkul ak ñun Pastef mouvement politique am la yor ñu koy naan le président Moussa Camara xel yi yëpp daal dem ci moom parce que ku social ci biir Kër Massar yaakaar naa Moussa kamara ngay njëkk a tudd ñun donc ñàkk bokk parti politique loolu waru ñoo mën a téye ñun bis bii bis Moussa Camara la jël ko tuddee ko bis bi jox ko

mais na nga doon sénégalais boo xam ne say loxo set na te bëgg nga réew mi ñun Pastef nañ fexe tallal ko loxo mu ñoo ñu ànd liggéey Sénégal kon geste bi encore une fois damay wax ne ci la ñuy le président Moussa Camara et son mouvement que Pastef leur temps la main nañ ñëw ñu liggéey bokk liggéey Sénégal la main dans la main ñu bokk liggéey Kër Massar bis bi buñ ci yàlla yóbboo si jàmm ak salaam euh, li ñuy lancé

la activité di commencé fii lycée jeune de Casamance. waaw asalaamaaleykum population Kër Massar mais ñu ngi kontaan bu baax di wax ni man mii di wax maay mbay Mbengue la coordonnateur du mouvement MS4 du président Moussa Camara jiite ànd ak délégation bi jógee ms kilifa yi nekk ni sama ginnaaw. fi ñu tàmbalee suñu wax moy di gërëm di contane bu baax initiative bi nga xamanteni mom la Pastef bu Kër Massar am ci ouverture d'esprit biñu woné biñu comprendre ni réew mi ñun ñëpp ñoko bok képp ko xamanteni da nga japp ni am nga xalaat bu rafet wala yalla dimbali la nga am teraanga xalaat population bi da nga am obligation soutenir le président Diomaye ci limi def ñuy rafetlu ni ñu amé compréhension ci xamni président Moussa Camara c'est un acteur de développement di homme de social nekk koo xamante ni nekkul ci dynamique parti partisan président Moussa Camara benn affaire la gëm mooy dynamique bi mouvement bi mu jiite di doxe muy lépp loo xamante ni yëngatu la bu nekk ci département bu Kër Massar ak organisation bu ko mën a organiser président Moussa dafa am obligation wu soutenir la ñuy def parce que bu réussir mooy nekk réussite wu département bu Kër Massar donc ta slogan bi mi demee moy amul ben dëkk buy am valeur valoriser donc bu féké ni vous bu Kër Massar Nord dañu organisation quel que soit lu mu doon day am obligation soutenir li def donc contentement bi ak remerciement yi vous fu mais amul fu mu ci xalaat c'est vrai que la déjà il est au pouvoir bu ni rek ministre yaa nga fa député yaa nga fa ñëpp ñoo xamante ni war nañ mën a soutenir bis bi ñu ngi fi donc bu fekkee ni am ngeen attention ak réflexe ci président Moussa ba honoré ko nii ngeen ko honoré vraiment rëy na ci ñu MS4 rëy na ci département bu Kër Massar donc euh, ñi ngi kontaan bu baax di wax ni le président eh, Bassirou Diomaye ak le premier ministre Ousmane Sonko ci dynamique bi ñu lancé ñu ngi leen di rassurer ni ci loolu ngeen nekk muy képp koo xamante ni fa nga nekk di ca yëngatu say loxo set na. ci jubal jubbanti boobu ñu woote ci dynamique boobu nga nekk Pastef dafa am obligation wu seeti la tàllal la loxo indi la ci li ngeen di def bi ngeen ci porter seen choix ci président Moussa ñu ngi leen di remercier di leen ñaan di leen ñaanal aussi bés bi mu réussir te yéene yu rafet yu ci ñun ñëpp am yàlla ko yu yàlla mottali di wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah di wax jërëjëf